salaamaaleykum yaay. waaleykum salaam Sala. tout bene. Cosé Cosé wàcc nga. waaw. Hmm. naka école tey. ndax Sala tey école neexul. dañ waxula ak yenn saa mi si te day ma wax euh, lenn lu ma neexul. dañ la yenn jaar wax lañ la wax mën nga ma ko wax. yoo xam ne daf may wàññi tuuti. Sala. ah. lii du vinaigre la. waaw. lii lan la du ndox. waaw. lii mooy statut d'animo ci olof mooy lii mooy sa état d'être sa état d'âme mooy mm, kaas bu fees dell nga et amul lenn loo xamante ni euh, rax na la donc état pur la bi nga xëy di jàngi da nga meroon. bi nga wàccee lu tax nga mer. ndax dañ la wax lu la neexul. vinaigre bii dinañ ko naan. Hmm, déedéet. boo ko naanee nu muy mel. dafay euh, amaaru. day naqari donc vinaigre bi mooy wax yu naqar yi ñu la wax heure bu ñu la waxee wax yu naqari day mel ni vinaigre bi ci ndox bi heure bu ñu la waxee naqari day mel ni vinaigre bi gis nga vinaigre bi ni ndox bi commencé changé. du hmm, hmm. gis nga. léegi bi nga wàccee li nga fi indaale muy lan émotion yi ngay sentir. naqar ak colère. naqar ak colère muy mer léegi naqar beeg colère bi lan moo koy dindi. su ma la waxee sama problème ak sama naqar ak sama colère dem. léegi kon mën nañ ne naqar beeg colère bi boo waxee say problème sa yaay di ci sotti beneen dox di la wax ni sala say belle la mooy da rafet macha allah sala tu es intelligent. donc le fait que ngay sotti di sotti di sotti mama nga wax mama tey dañ ma wax lii dañ ma wax laa dañ ma wax lee donc yaa ngi wax wax ji mu ngi génnee naqar bi say émotion ci sa xol parce que partage dafa baax mooy wax li la naqari ki nga xam ne daf lay dalal muy sa yaay wala muy say frère wala muy sa sœur wala muy sa xarit boo xam ne bëgg na la soo ko waxee sa naqar mu ne la sala wax yooyu bu leen faale ndax ñooñu li ñuy wax ci ñoom la jóge parce que ñoom bu ñu amee naqar parce que ku am naqar tey su fekkente ni waxoo sa naqar su fekkente ni partagé woo say émotion su fekkente ni sa yaay delloo delloowu la valeur bi nga am kon ndox mi nga indaale da ngay commencé di xuloog say frère di commencé di waxanteeg ñoom parce que lu tax lu tax mooy. sama xol neexul. ndax sa xol neexul su fekkente ni tey ñëw nga rek wàcc sa yaay laaj la lan mooy xew ngay continuer di wax sa naqar ba nga gis ni gis nga ndox mi léegi wax sa naqar nii la mel ak le fait doo wax sa naqar sooy wax sa naqar dafay dañ day sotteeku dégg nga sala mhm. kon gëmal nii li nga xamante ni tey mooy euh, sa xarit yooyu liñ la doon wax ci ñoom la nekk ndax ko am lu bon lu bon rek ngay. lu bon rek ngay mën a toppee. salamata macha allah moo ma dàq je le sais. léegi Salah comment tu te sens mooy na lan ngay sentir fi mu nekk nii comment tu senti. Hmm, léegi may sentir euh, baane. lu tax. ndax euh, li moo wax. ndax valeur yi nga xam ni moo nekk ci yow. kon léegi léeg du ñàkk nga dajeek ay nit yu soxor ñu wax la wax yu soxor waaye wax yooyu warul yàq sa état intérieur. ba ngay ñëw di ko sippi sa waa kër walla di ko sippi ñeneen yi nga dëkkal kon à chaque fois seen doom partage leen euh, seen journée am dafa naqari wala journée am dafa dund lu metti ni ngi approche bi ngeen war a def rek mooy xamal ko ni liñ koy wax wala liñ koy def ñi ko koy def ci ñoom la jóge waaw ñi ko koy def ñoom lu naqari la ñu am kon lu naqari lañu mën a joxe ndax moom mi am douceur am li nga xam ne tey mooy gentillesse lu baax rek la mën a joxe.